ñu ngi lay delloo salaam nuyu bi ca alquran moo ñu xamal ne nuyub jullit ak moroom ka mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi kon ñu ngi lay wax wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu di la dalal itam fii ci kër gi ñuy liggéeye muy institut islamique de Dakar bi nga xam ne yàlla ci coobareem ak mandum euh, li ñu fi président Macky Sall indi depuis 2012 depuis 2012 itam ñu ngi ci service su lépp lu xam ne yaakaar nañu ne bu ñu si jaaree dana jëmale institut islamique ak grande mosquée bu Dakar dana leen jëmale kanam waaye dana leen jox ndam ci lépp luy liggéeyu réew mi ak lépp luy liggéeyu Sénégal euh, nga laaj ma nag ci kilifa gu xam ne defe naa ne képp kuy yëngatu ci lislaam euh, war na mën a wax ci Thierno Seydou Nourou Tall Thierno Seydou Nourou Tall comme ni nga ko waxee mu ngi wàcc liggéey ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru nasaraan bu ñuy wax euh, weeru janvier euh, depuis boobu ak léegi boo ko seetee ñeent fukkeelu at bi euh, man si xam naa moo tax janvier ren bi événement yu bëree bëree bëree bëri wax ci Thierno Seydou Nourou Tall Thierno Seydou Nourou Tall Euh, boo jëlee ci taal ji rek war nga xam ne mu ngi fàqee ko ci alxaju omarul fuuti yu taal alxaju omarul fuuti yu taal nekkoon kilifaak ak diine ko xam ne bii euh, jamaano boobu lépp li ñu doon tuddee monde islamique xam nañu ko ndax booba boo jëlee li ko déparé senegal nga jaar Mali jaar Nigeria jaar ba dem ba dem Arabie Saoudite mu nekk itinéraire bu xam ne bii eh, alxaju Omarul Fuutiyu Taal daf ko defoon ba fa itam dem côté Damashq moom daal moom nekkoon na eh, li nga xam ne moom la ko sëriñam moom it tuddeetoon tuddeewoon Seyd Modou Ghali mu tuddeewoon ko ne moom mooy xalifa jullit yi ci wàllu tariqa bi nga xam ne mooy tariqa tijaan ya ci Afrique gi ñu nekk te loolu itam doomam yi ak sëtam yi ñu ngi ko continuer di ko liggéey di ko doxe Thierno Seydou Nourou Tall xam nga ne ko amoon baat la ci jamono yooyu nga xam ne Sénégal amagul indépendance boobu tubaab yi ñoo fa newoon yàlla may ko ne euh, kilifaay diine yi fi newoon yëpp nangu leen nañu ko wala boog li ëpp ci kilifaay diine yi nangu leen nañ ko ndax ñëpp bokk nangul la moom daanaka yombul euh, ndax yàlla sax ak jëmmi boppam lim ñu woo tam mooy ñu topp ko nekk ci diina ji ñëpp mën nañ ci buura ndoor umatoo ndoor waaye nag bu ñu waxee lool nga nekkoon kilifa gu xam ne ñëpp jox nañ la respe sa mbokk yi nga bokkatoon nekk di liggéey ci diina joxoon nañ Thierno Seydou Nourou Tall respect bu xam ne bii respe mooy xormaaloon nañ ko xormaal bu xam ne bii kenn mënu du weddi ne joxu ñoom alaaji Seydou Nourou euh, ormal boobu tubaab yi nga xam ne fii itam wax dëgg yàlla ñoom la fi yàlla indiwoon ñoom ci jamono yooyu euh, ñoom it euh, orma boobu joxoon nañ ko ko ndaxte moom boo demoon fii ci suñu archive yu Sénégal danga fa fekk ci documentation bu ñuy tuddee la surveillance de l'islam boo demee ci série ya fa ne boo laajtee dossier alxaji Omar Thierno Seydou Nourou taal dañ la ci jox lu bare bare bare ci kaw loolu nag eh, ku dimbale woon diine ji la pour mu taxaw ci Sénégal loolu moom itam kenn mënul ko weddi waaye ku taxawoon la itam pour tariqa tijaaniya bi nga xam ne bii mooy confrérie tijaani bi nga xam ne ci la newoon fekkoon ci ay maamam fekkoon itam ay woy juróom la ko dalee ci alxaji amarul Fuuti yu taal ba agsi ci moom eh, tariqa boobu itam défendre na ko bu baax a baax a baax te kenn réeréewul ne bi mu wàccee liggéey eh, ci ñaar fukkeelu fan ak juróom ci weeru eh, janvier boobu ba léegi itam ñi nga xam ne ñi ñoo ko wuutu ci liggéey bi taxaw nañu ci lu ñu man lu ko dalee ci famille taal ba nekk Louga fii ci biir Sénégal laay wax ak yow nag ak carno Muntaqa Taal Cerno Muntaqa moom ku ne xam na taxawu waayam ndax gis nga boo demee ci musale omarien moom moo fa ne doon ko taxaw ba yàlla def ci démarche am ak ay taxawaayam mu indi fa jàkka ji nga xam ne ji sag la ci bii mu def ko ci biir Dakaaru fi ñuy tuddee Dakar Plateau mu def fa jàkka ji gannaaw si gi gis nga liggéeyu defaraat ak rafetal yi mu def ci musali bi ak lépp lu ko wër mu mel ni moom la alxuraan di wax ne euh, dafa am ñu xam ne dañu wuutu ay kilifa waaye ba ñu wuutee kilifa yooyu ñoom dañu bàyyi lépp lu xam ne moo doon yoonu yoonu kilifa yooyu euh, euh, adan salaata yu mel noonu aaya bi jarul ñuy ko fi indi waaye moom ajuhut ci yoon woowu moom ga ñoom boog bi ñu ñëwee li nga xam ne lii moom la Thierno Seydou Nourou Tall euh, jëmbatoon taxawal ko dañ ci taxaw bu baax a baax a baax gën ko yaatal man ak sama jëmmi bopp dama am diiru ay at yu xam ne yàlla taajul ma ci réew mi maa ngi woon ci àll bi di ut xam-xam mais bi ma ñibbisee ci atum 1982 ba léegi mën naa wax ne at bu nekk euh, waa Moussaly Thierno Seydou Nourou taal dañ màggal palaas ba jàpp bis bu xam ne bii dañ fa def ñaari fan ba ñetti fan mën naa la wax sax na ñetti fan sama arrêté ndax àjjuma ñu nga fa samedi ñu nga fa euh, dimanche tam ñu nga fa ca loolu buñ ko wootee mboolem lu xam ne lii aju na ci taaleen nekk Mali nekk fii ba Burkina fu ne sax defe naa ne ren ji ay délégation yu boo Nigeria ak euh, boo fu ne rek ñëw nañ ci Afrique ba ci réewu araab yi réew araab yi boo demoon danga fekk ne seen seen jeexital bari na fa lool kon kilifa googu eh, yàlla boole woon ko nag ci wàllu tariqa tiijaan ya mu gënoon ànd ak ak waa Tiwaawoon waxuma la ne mu àndoon ak waa Tiwaawoon bu boobaa dafa mel ni waa Tiwaawoon dong la àndatoon mm-hmm. waaye gën a àndat nag mën nañu ko wax mm-hmm. gën a àndat moom mu ne mu fare woon ak alaaji Malick si Eh, rahmatullahi alay yal na yàlla yërëm leen alayhima yal na yàlla yërëm leen ñoom ñaar waaye itam alaaji Malick si itam farewu woon ko se doomam Serigne Abdoul Aziz doomam yëpp nag doomam yëpp la ko dalee ci xalifa Ababacar si ak Serigne Abdoul Aziz si ah, dabbaax ba ci bi sedd yi commencé nekk xalifa li ko dalee ci Serigne Mansour eh, Cheikh Ahmed Tidiane Maktoum Serigne Abdoul Aziz si eh, Al Amin ba ci Serigne Babacar si eh, mi nga xam ne tey moom la yàlla Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xam ne moom la yàlla def tey mu nekk xalifa am li tiijaan ya ci Tiwaawoon moom itam ñoom ñooñu ñëpp nag dañu taxaw ci respe bi dundal ko bu baax a baax a baax ndax man toog naa ay cérémonie yu bëree bëree bari yu xam ne bii bu njowootu alxaaju omor bu Fuuti yu taal toogee ñoom Tiwaawan yi la ñuy njëkk a wax ñuy sëriñ tariqa bi bu ko defee loolu nekkoon euh, li ngeen di wax relation particulière maanaam ànd gu xam ne ànd gu ñu jagleel la ñu amoon ko mu amoon ko moom ak waa Tiwaawan yi waaw digganteem ak Tiwaawan lan aka lal ba mu xëy na gën a fës ci digganteem ak yeneen këri diine yi maanaam digganteem ak Tiwaawan li nga xam ne ci man ci ni ma la waxee naa la alxaaji omarul fuuti yu taal yàlla daajoon na ko fii ci Afrique mu nekk fi kilifaak tariqa bi gën a mag ci Afrique ci tariqa tijaaniya bi ci gënoon feeñ gën ci ràññeeku a waxoon na ne ne eh, alxaaji omarul fuuti yu taal yàlla joxoon na ko mu nekk xam ne kii eh, eh, faloon nañ ko faloon nañ ko mu nekk xalif général ci lépp lu xam ne lii ci wàllu tariqa tiijaan ya la rawatina fii ci euh, euh, réewum Afrique te bi mu ñëwee itam ci ñi nga xam ne ñii ci fii ci suñu réew mi surtout maanaam moom itam sax man nga wax ne euh, suñu réew mi ak réew yu ko wër alaaji Malick Sy ridwanullahi alayhi ci ñi ci njëkkoon taxawal di woote ci tariqa tijaani ba di ko yaatal di ko tasaare mel nañu wax ne gàmm système bi mu jël ca ba nga xam ne fu mu ne macha allah euh, suñu maam alxaji malik si ci ñi nga xam ne ñoo ko fi njëkk a lawal njëkk ko fi taxawal relation yooyu nag ñoom la mag ñi daan sàmm wante maanaam dañuy seet bu nekk ki nga xam ne kii daal ñoo bokk ay orientation ñu seet orientation boobu nuñ ko gën a mën a lawalee ak nuñ ko gën a mën a jëmale kanam mu jëm kanam Eh, waaye nag xam nga dama la wax rek ci tariqa tijaaniya waaye alaaji eh, Seydou Nourou taal ak jëmmi boppam du ne tariqa tijaaniya bi dong la woon mais képp ku xam ne kii jullit nga eh, moom itam say mbir dem na ci taxaw waaye nag emu doon foofu dong maanaam képp ku xam ne kii da nekk doomu réew mi nekk doomu Sénégal lépp lu xam ne lii mooy sa àq ak sa yelleef Seydou Nourou Tall lépp lu mu ci yëgoon daf ji doon taxaw gën ci ay nu taxaw noon naa la ni mu amewoon noonu ak nitu diine yi noonu la amewoon relation yu baax yu xam ne yii nag relation defar la ak tubaab yi waaye nag kenn du ko jalgati defar ba itam bu ne ne relation am ak tubaab yi mooy euh, euh, jëflante bu xam ne bi luy doxatal diinaam du ca ne waaye luy doxatal xeet bi mu bokk du ca nekk nee nañu dox na lool ay tànki jàmm euh, jamono bi nga xamee ni xëy na tubaab bi ñoo fi nekk jamonoy AOF di euh, Afrique occidentale française ak yooyu. mu ngi noonu booba euh, ci jamono yooyu nana la duhun ne fii rek la doon aar. ndax xam nga booba Saint-Louis comme ni nga ko xamee. moo doon capitalu AOF yëpp. moo loolu moo tax ma ne la boo demee ci yeneen réew yi itam surtout suñu fii ak Mali. noonu lañuy ñuy joxe euh, yëg-yëg bu màgg boobu noonu lañ koy joxe moom itam Thierno Seydou Nourou Tall booba itam mboolem tariqa yi nga xam ni ñoo fi newoon moo xam tariqa tijaan ya tariqa murid la euh, euh, ci Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba moom itam fekk liggéeyam dara commencé waaye yooyu yëpp daf ci doon taxaw ba nga xam ne daal dara du leen xatal ak laayeen yeeg yëpp wallaahi alhamdu wa shukru yàlla def nañ bi nga xamee ne bii tubaab yi dem nañu indépendance jot euh, ku ne xamoon na relation ak Senghor Senghor ak ak ak ak ak Seydou Nourou Tall amuñ maanaa Seydou Nourou Tall euh, rahmatullahi alay heure bu soxla am Senghor ni ñu koy nettalee même buy guddi daay buur dem directement euh, ci loolu itam ci la ko yàlla jàppandale loon ne wax dëgg yàlla yu bëree bëree bëree bëri mu man mu manoon ci taxaw man ci man man ci taxaw yoon bu xam ne bii ngënal Sénégal moo ci nekk ku ne xam ne itam euh, ne alxaaji sëriñ alxaaji Abdul Aziz Si Dabbaax euh, ku ne xam na ni mu ko wuufee woon wuufaande gu xam ne gii euh, boo doon déglu ci lenn waxtaani waxtaani sëriñ Abdou Euh, ku baax la moom itam lépp lu ko nit mas a defal ci lu baax daf koy nettali wax naa ni nga xam ne ni la ko sëriñ euh, Thierno Seydou Nourou Tall wuufee woon bi mu droñ ñëpp si Ndakaaru ba fi mu ko njëkk a jox mu dëkk fa yooyu yëpp booy topp waxtaanu sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh ndax léeg-léeg moom itam euh, waxtaanam kenn du ko fàtte Sénégal bu dara xewee rek lu ci bëree bëree bëri ñu ñu ñu ñu indi teg waxam la mu doon wax moo xam ci wàllu diine ji la wala ci wàllu politique bi la walla ci wàllu mbokkoo gi loolu itam nag euh, euh, moom la njaboot gi fi bàyyi moom Thierno Seydou Nourou taal yàlla dénk ko woon njabootu gu bëri gu boo ci moom waaye nag lépp luy njabootu euh, alxaji amarul Fuuti yu Taal njabootam la ñoom itam yoon boobu la donn moom la taxawee boo ñëwee fii gannaaw waxoon naa la Cerno Muntaxa Cerno Madani bi nga xamee ne papaam wàcc na liggéey ba léegi ñoom itam yoon boobu lañu aw boo demee Cerno Bachir ak Cerno euh, kii Muntaxa Daafe ñoom ñëpp yoon boobu la ñu jaar mu mel ni daal euh, euh, alaaji Cerno Seydou Nourou taal defe naa ne waxuma sax royu waay royukaay la ci génération bi waaye royukaay la ci génération yëpp depuis yàlla feeñal ko fi ak depuis yàlla yóbbu ko ba léegi képp ku xam ne kii tegu nga ci tànkam mm-hmm. eh, yàlla dana def ne walilahi alhamdu kenn du la dégg ci lu dul lu mu lay nawee mm-hmm. loolu nag defe naa ne mag ñu nekk royuwaay mm-hmm. dañ war a di waxtaanee seeni jikko ak seeni jaaruwaay pour que ëllëg xale yi man di leen roy eh, waxuma sax xale yi ba ci mag ñi ñun ñuy ñëpp mu nekk suñu royuwaay ci lu ñuy waxtaanee ci lu ñuy def ak lu mu mën a doon bon nag tànn bi ngeen tànn ko ci jamono bii ñu toll pour yéen itam ngeen bugg a siiwal ay mbiram man de dama bokk ci ñi nga xam ne gëm nañu ne mag ñi de képp ku xam ne di seen jaaruwaay yaa ngi fa bëgg a jaar gëstu ko gëstin bu rafet yàlla dana la may ndam waaye képp ku fa jaar bëgg a jaar itam gëstu ko gëstin bu xam ne bii bu ñaaw la yàlla du la may ndam ca loolu man bokk naa ci ñu gëm loolu bu ko defee ñu ñaan suñu borom toujours mu xiir ñu ñoo ñu ñu nekk suñuy git nekk suñuy royuwaay nekk ñu xam ne ñi ci ñoom la ñuy waaye yéen itam yéen itam yéen ñii taxawal ci yéen nekk ci seen i rajo ak seen i télévision eh, yal na yàlla boole seen i télévision mu bokk ci ak seen i rajo mu bokk ci yi nga xam ne yi Eh, ku leen dégg rek naw leen. amiin jërëjëf yàlla mën na ko ñu des ba tey ci Thierno Seydou Nourou xam-xam ñoroon na ko lool ndax eh, wàllum njàng mi eh, jaraloon na ko dem fu ne wuti ko. Mm-hmm. xam-xam googu. Thierno Seydou bokk na ci mag ñi nga xam ne tey jii boo demee IFAN da fu fekk ay jeexitam ndax itam nag IFAN man toujours dama koy wax ne IFAN moom la ñuy liggéeyee daanaka ba léegi nit ñi xamuñu ko. te waroon nañ maanaa IFAN waroon na bokk ci institution yi nga xam ne da euh, semaine bu dawut semaine bu ne itam weer bu ne wala ñaari weer bu ne war nañu dégg lañuy def euh, ci IFAN euh, ci ñor googu yàlla dénkoon ko mu xam-xam ñoroon ko lool bokk na ci ñi nga xam ne ñi ci jamonoy tubaab yi ñu njëkkoon sollicité pour que doomi Sénégal yi génn dem bitim réew jàngi dem Cerno Seydou Nourou Tall dem fa mel ni ci yeneen réew yi ay Algérie dem ba ay côté Caire am na tur yu xam ne yi bu ma neexoon mën naa la ko tuddal mais tudd tur ci émission yi ñu mel man préféré ma ko waaw ndax ñooña euh, ñëpp xam nañu leen waaye bokk na ci ñu njëkkoon taxaw ci jamaanoy tubaab yi pour que ne doom Sénégalais yi nañ génn dem jàngi ca loolu ba léegi boo demoon fee ci famille omarienne ñooñu nga toog ñu nga fekk ñu toog wër Thierno mun taal ñu ci bëree bëree bëri man xam naa leen lu ñu néew néew jàng nañu ba am seen licence ci réewu arab yi moo xam diggante Caire diggante Algérie ak yeneen yi réew yu bëree bëri maanaam loolu moom euh, kenn ña ñaawul xel ne ci ñi ñi mu gënoon ni ko gënoon itteel bokk na ci xam-xam bindkat bu mag la woon aussi surtout ci làngu arabe. waaw euh, moom itam mag ñëpp seen mbind mbindum arabe la. mag ñëpp nee ma lu tax. mag ñi euh, njàngum tubaab booba yàlla xiirul leen ci. xiiruñ ci sax seen doom yi. xëy na nag am na ci ñu xam ne ñii lu tubaab masaan wax dañ ko xam. lu tubaab masaan bind dañ ko xam surtout rawatina waa Tiwaawoon yi surtout waa Tiwaawoon yi ndax ñoom dañu yàggoon dëkk ak ñoom depuis Saint-Louis en même temps depuis ñu ñëw euh, Tiwaawoon am na ci ñu xam ne ci yeneen këru sëriñ yi ba léegi boo demoon jox leen leetarum ñetti ligne ci français il faut ñu ut ku ko liir ku leen ko kéer maanaam bon moom ñoom bon seenam jàng alquran ak lu ci aju la ndax buñ ne xam-xamu alquran mooy xam-xamu araab xam-xamu arab bi moo leen itteeloon moom lañ doon jàng moom leen doon jàngale moom leen doon xiir seeni doom euh, loolu moo taxoon daanaka boo boo seetloon ci fonctionnaire yu mag yu njëkk yi doo ci fekk kuñ ne ne kii euh, waxuma ne doo ci fekk d'une manière générale waaye bëriwul ñu ne la kii ci ñoom la bokk am na mais bëriwul mm. yàlla nag def la ne fu mu ne wallahi alhamdu wa shukr xam-xam moom la ci yonent bi waxoon rek ne dafa doon lu xam ne lii eh, lu lu réer la jullit yëpp ñoo war a dem di ko uti fu ñu ko fekk rek nañ tànn la ca gën a baax ñu jëfandikoo ko la ci amul solo ñu bàyyi jikko yi yaa ngi ko junj sànq euh, tey Thierno ñi ko xamul boo leen ko doon misaalal ci wàllu jikko ak jëf yu rafet lan nga leen di wax Thierno Seydou Nourou Tall bokk na ci jikkoom yu xam ne bii ndax man maa ngi seetlu image am ba léegi ku woyof la woon loolu defe naa ne nag bu fekkee ne sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh daf ko ci doon raw moom raw na ko ci daf ko ci doon roy ndax defe naa ne moom woyof euh, ku ñuy joxe misaal ci moom la loolu nag yonent bi dafa wax ne doom aadama bu mu mën a doon bu woyofalee boppam yàlla yëkkati ko bu suufalee boppam yàlla yëkkati ko bu oyofalee boppam yàlla diisal ay mbiram ba nga xam ne bii mu euh, bu bu oyofalee boppam mm. yàlla moo koy yëkkati waaye boo yëkkatee sa bopp gis nga fu mu ne nii kat euh, kilifa gu mag bu fi ñëwoon te ñun ñëpp ñu xam ne kii daal fu mu ñëw daan jaay puugare ci nit ñi mm. bu ñu demee euh, bu ñëwee ñun il faut ñu jox ko kii ba waaye bu kii ñu ne eh kii gis nga ni mu mel mm. waaye boo oyofalee ñëpp dañuy rus ne seetal kii daraja ji ko yàlla jox te loolu ku ne xam na ne eh, na Seydou Nourou Tall eh, ci jikkoom la woon. benn ba yow yaa ko wax léegi bëgg xam-xam ak ak ñooñ xam-xam. loolu jikko benn jikko gënal ko. wax bañ fi dara wax ba léegi taxawu waayam ci mboolem waxuma ci jullit yi. wala lépp lu xam ne lii doomu aadama la lu koy war a aar lu koy war a wattu lu koy war a jox ndam. li war a dox kenn du ko yeb kenn du yéeg ci kawam. loolu lépp di koy Thierno Seydou Nourou Tall la woon Thierno Seydou Nourou Tall boo doon ne da doon lim ay yëfam macha allah da fay nekk ci jikkoom yi benn boo yëkkati rek nga ne boobu de bu ma sañoon man noonu laay mel ba ba muy jeexee. Thierno Seydou Nourou Tall euh, ñu xamoon ko aussi ci wax ju rafet ak mën a defar mbokk. waaw xam nga euh, defar mbokk moom ak jox dox tànku jàmm ku mënul wax wax ju rafet doo ko mën. laaj ma lu tax bu fekkoon yow mi maag yow dañ dañ jotee woon fii ñuy waxee eh, ñii dañu déglu ñëw rek commencé dañu daggale yi saaga duñu juboo ba faaw duñu mën a juboo mais daf ñuy wax ah waaye yow soxna si yow itam kii boo ko xoolee mën na la papa doo doo xormaal kii mais nga ne waaw yow kii sa moromuy doom yi la sa moromuy doom yu ndaw yi sax la lu tax ngay bu ko defee wax yooyu wax yooyu dana wàcce kenn ku mu mën a doon mm-hmm. ci loolu alxuraan sax moom moo ñu ko santaane mm-hmm. foofu dama laay waxal baat bi alxuraan wax ci aaya mm-hmm. mu ne waqooloo linnaasi xuslan waaw mu ne nit ñi booy waxanteek ñoom da ngeen dangay wax ak ñoom ci kàddu yu gën a rafet eh, kii boobu léeg-léeg bu ma bu ma ci egsee cim njàng alxuraan wala ci nettali alxuraan ma ne suñu mbokk journaliste yi de ñu bëree bëree bëri waroon nañu jàng aaya bi ñuy <laughs> ñuy leen ko defal ñuy leen ko defal ay waxtaan mm-hmm. dafa defe ne journalisme ci alquran mm-hmm. war na am yeneen ngeen da ci def ay débat mm-hmm. bu ko defee alquran gis na journalisme def doon na ko waxee waqooloo li naase waaye wax leen wax leen ni ñi wax yu xam ne yii moo gën a rafet yonent bi ne euh, am na foofu sax euh, foofu sax du waxu yonent bi mm. waxu alquran la mu ne qawlun maarufun xayrun min sadaqatin yatbauha asa mu ne wax bu xam ne bii bu jekk la bu baax la mm-hmm. moo gën sarax bu xam ne boo ko joxee borom rek tegal ko ci ñaawteef mm-hmm. yooyu yëpp alquran la boobu nag si Thierno Seydou moom euh, ku ne xam na ne ci xam kàddu xam waxinam xam jëflanteem mm-hmm. noonu la daan def ba mën a maslaxaat ak ñëpp wolof yeeg tukulóor yeeg soninke yeeg ñu mën loolu am na solo ci Thierno Seydou Nourou Tall ni nga ko waxee bu ñu bëggoon a jukki ay jikkoom daanaka duñu fi jóg ndax benn boo yëkkati euh, mat na émission waaye mënuñu ñëw ba fii sekk waxtaan ak yow te waxuñu ci bërëb bi muy institut islamique euh, solo si mu am tey euh, ci askan wi xëy na ñu bari aussi umpale nañu liñ fiy def ni ñu umpalee li nga junj sànq muy li IFAN di liggéey nga wax ñu tuuti ci institut islamique bi nga xam ne tey fii la ñu toog di waxtaanee Thierno Seydou Nourou mu grande mosquée dañu nekk ñaari institution yoo xam ne benn lañu man mi nekk fi directeur ba ma buggee sax euh, ku xam yoon bi gaaw dama ko naan grande mosquée de Dakar ndax ñoom ñaar ñoo bokk jubluwaay ñoo bokk jëmuwaay euh, ci buuru Maroc boo demee fii ci euh, ci grande mosquée ñoom ñoo jëloon initiative tabax tabax tabax grande mosquée Eh, fii nii ci institut islamique am na benn association bu mag bu xam ne ku ñuy doon wax Mass Joxaane doon na ko fi jiite boo génnee da nga gis benn tableau ci sa loxo càmmoñ booy dugg ci sa loxo ndeyjoor tableau boobu bu ndaw la boo taxawee boo ko liiree da nga fi xam lu bëree bëree bëri institut islamique bi nekkoon benn institution bu xam ne ñu ngi ko fi amaloon ca jamaanoy président Léopold Sédar Senghor mais xam nga Senghor ak jëmmi boppam wàllu culture daf ko ittee woon lool institut islamique ci jamono yooyu lépp luy yëngatum lépp luy taxawaayam dañ ko yóbbu woon ci culture ministère de la culture booba lépp lu ñuy def fii moom moo ko moo ko yëlifoon yàlla dogal na ne itam euh, ci jamono yooyu ku ne xam na relation Senghor ak Amar Samba mu njëkkoon fi xalaat pour Amar Samb ñëw fii waaye gannaaw si gi xalaat dem ne Alxaaji Rawxaan Mbay mooy premier directeur bu institut islamique de Dakar bu ma juumul te yaakaar naa ne loolu amoon juum njuumte di ko dalee 1974 ba 2002 moom Alxaaji Rawxaan Mbay mooy directeur général bu institut islamique de Dakar yàlla dogal na itam ne euh, ci jamaanoom yi la plupart lépp lu institut islamique di def daf koy def ak ministère de la culture ak mboolem ministère yu fi jaar mais bi nga gisee président Abdoulaye Wade nommé Alhaji Omar Gueye comme directeur général de la ñaan ne maanaam moom du ñaan sax ci jamono yooyu la jël décision ne institut islamique de Dakar léegi dañ koy yóbbu ci ministère de l'éducation nationale booba ministre bi ñuy wax le professeur Moustapha Souran ku ne xam na ne moom masoon na nekk recteur bu université masoon na nekk doyen faculté du droit yore woon na fi ci wàllu xam-xam yu bëree bëri njëkk muy nekk ministère de l' ministère de l' éducation nationale. ci jamono yooyu nag mu nekk ministère de l' éducation nationale le président de demande ne léegi institut la joxe ndigal ne. institut islamique léegi daay aju ci ministère de l'éducation nationale bokk na ci action yi mu njëkk a a def ci jamono boobu mu mu indi fi njàngale mu xam ne bi njàngaleem bëccëg la maanaam li ko jiite woon lu ñuy tuddee ay cours du soir moo fi woon nga xam ne formation de ay adulte la euh, wadd bi mu ñëwee mu indi fi njàngaleem jour nga xam ne dañuy former xale yi euh, ñu am bi certificat bu xam ne bi dana leen permettre ñoom itam ñu mën a dem jàngale ji ci njàngale mu suufe mi loolu moo doon continuer di continuer ba nga xam ne moom itam moom Wade toujours mu demandé ne euh, euh, euh, les matières islamiques nañ ko introduire ci biir système éducatif bu Sénégal ñu woote commission bu rëy rëy rëy bu xam ne bii ñun ñi ca ña ca taxawoon la bu ma ne ñun ñi man mii di Thierno Ka ca ña ci taxawoon ci lañ bokkoon tant que inspecteur général de l'éducation nationale ak yeneen yi kilifa fii may waxee ci yow ak ci yow fii ci institut ku mel ni docteur Mamadou Ndiaye également ak ñeneen ak ñeneen tur yi du duñu ko mën a tudd ndax daay nekk liste bu xaw gudd waaye booba itam ci la ñu defoon lu ñuy def def introduction de l'éducation religieuse dans le système éducatif de Sénégal yàlla dogal itam moom itam mu joxe joxe ndigal ne <coughs> ci école yi nga xam ne yii dañu leen doon tuddee école franco-arabe yooyu seen njàngale na nekk cinquante pour cent lépp lu ñuy jàngalee ci français mais cinquante pour cent lépp lu xam ne lii dañ koy jàngale ci arabe. continuer ba yàlla dogal ne 2012 président Macky Sall ñëw nekk président de la République. fekk na booba am na ay commission yu xam ne yu xaw a takku lañ euh, tur wi du fi xajandoor mais commission yu xaw a takku lañ doon liggéey ne léegi dañu war a taxaw pour que état bu Sénégal reconnaître bac bu xam ne bii bac araab lay tudd bac arabe moom ñu tuddee aar euh, am côté bu xam ne bii islamique la côté bu xam ne bii enseignement arabe la loolu nag bi président Macky Sall ñëwee moom itam jëmmal ko Euh, ndax nanaa la président bi mu ñëwee 2012 euh, dafa toog quelque mois man mu indi ma fii ndax man mu ma fi indi le 8 août 2012 te defe naa ne mu ngi dem au pouvoir ci mois de mars 2012 bu ma juumul mois de mars 2012 euh, août 6 août mu indi ma fii bi ma fii bi ñu fi indi itam euh, bi ñu toogee fii di def passation de service fii ci sama bureau inspecteur yi nga xam ne ñoo ma doon defal passation de service dañ ma defal lu ñu lu xaw a ni du feuille de route feuille de route bi bokkoon na ci réforme bu institut islamique de Dakar réforme bi euh, ñu taxaw ci li ñu njëkkoon njëkk a taxaw ak ñu ñu ci doon liggéey yëpp ci commission yooyu mooy ne baccalauréat bi moom na am ñooñu nag commission yu bëri ñoo ci doon liggéey ci association islamique yi ci institut islamique de Dakar ci même université ay ay ay nit loolu ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba 2013 président Macky Sall signé décret euh, euh, nangu ne bac bu arabe euh, waaw bu étude arabe islamique reconnaître nañu ko yaakaar naa ne nit mënul wax ne man lii maa ko def lii maa ko def loolu sax du waxu nit taxaw ne man maa defar lii maa defar ne mais nag yaakaar naa ne bu fekkoon ne doon nga ñëw institut islamique de Dakar avant 2012 nga ñëwaat institut islamique ci su tey bii ñuy wax yow boo xoolee rek da nga xam ne am na ay changement yu bëree bëree bëri euh, yàlla dogal itam ne bi may ñëw man fekk na département de recherche euh, fonctionnement am du ma wax sax melu noonu noon moom kenn fonctionné wul ko boobu département bu département bu kii moo fi newoon bu xam ne mooy bu enseignement mais man tant que chercheur ndax maa ngi maa ngi nekk fële IFAN li ma njëkk a def ne bon département bu mel ni département de recherche euh, war nañ ko valoriser ci valorisation bu département boobu ci la ñu toog di génn ay ay bulletins yoo xam ne yii walilahi alhamdu fu mu ne nii bu ma juumul ñu ngi ci douzième numéro loolu moom man naa am sañ-sañ at lay euh, at bi léeg-léeg ñaar génn ci ndax xam nga bu doon ne par at la 2006 hmm. euh, ak léegi matagul douze ans man maa ngi nekk dugg ci sama huitième année hmm. euh, <coughs> léeg-léeg itam dama koy wax te dama koy ñemee wax bu baax nag hmm. ndaxte fi ma koy waxee foofa falaane maanaam bulletin li ñu ciy génne IFAN bi nga xam ne bii institution de recherche la ñun nombre bulletin yi ñuy génne ñoom accès bu ñu fa. Hmm. ba te léegi ku mu neex na dem vérifier yi 2012 août 2012 wala 2013 sax ndax ñun ñu ngi commencé affaire bulletin yi. les 2013 2014 boo demee nga ñëw jóor ne yii mooy bulletin yi IFAN génne. mais ma génne la mboolem bulletin yi nga xam ne moom la ñu génne fii ñun ñoo leen ëppale foofu te ñun benn direction bu ñu bàyyi woon loolu nag yàlla dimbale na nag bulletin bu génn autorité yëpp dañ leen yónni ndax ñun dañu am conseil d'administration bu xam ne mboolem ministère yu mu concerné dañ fi yónne seen i kilifa boor yooyu walilahi alxamdu ñu ngi ciy taxaw waaye itam eh, loolu bu ma ko fàttee ba tey itam ni kon ñëpp woo ma fàttalil ma ko dañu am partenaire yoo xam ne partenaire turc lañu ñoom it ñu ñu ngëble bu baax ci lépp luy jëmal institut ndax boo génnee da nga gis benn école ñu tuddee ko école de fii amu doon amu doon ci institut islamique de Dakar ah, mi ngi waaw boo génnee rek moom ngaa jàkka loolu ci partenariat euh, turc ak Sénégal hmm. euh, ci jamonoy euh, professeur Euh, Khalidou Khalidou Diallo bi mu nee ministère de l' éducation nationale ak Ahmed Sall inspecteur sàll boobu moo yoroon département d' enseignement lañ ko fi commencé tabax euh, walilahi alhamdu tey jii bokk na ci batiment yi gën a rafet waxuma sax ci institut waaye ci Ndakaaru <laughs> euh, ci wetu deux mille deux mille dix-sept bi ñu ne dañ bugg a def daara moderne daara moderne politique la bu xam ne bi état Sénégal. Mm, modernisation des daara modernisation de daara. ñu dox ba ñu am autorisation moom itam boo demoon da fekk daara ju xam ne ji wax dëgg yàlla euh, daara moderne yi état bi di taxa taxa tabax gënuñ ko nekk daara moderne. Mm. ñuy fa jàngale ak yu bëree yu bëree bëri. yooyu yëpp itam nag yàlla def na itam ne euh, comi commission de section bu grande mosquée. Euh, gannaaw bu ñu ñëwee ni muy fonctionner léegi masut ko di fonctionner waaye yàlla def na itam ne imam ratib euh, Moussa Alioune Samb yal na yàlla may ko wér dafa xaw jagadi fu ñu ko déggee rek war nañ ko ñaanal euh, moom itam yàlla def déggoo gu mat sëkk suñu diggante ak moom ndax fii toujours damay faral di wax ne moomee moomeelu léebu yi la mm. ku fi mas ñëw itam il faut nga seet noo xam ne ci wàllu maslaxa nuy déggoo ak ñoom. nañu ne ñoo ko joxe waaw loolu danaa la ko leeralal maanaa yàlla dogal na ne man maay premier euh, directeur bu xam ne bi nekkul doomu Ndakaaru doomu Lébu ndax Alaaji Rawxaan Bay nanaa la 74 ba 2002 moo jiite institut Alaaji Omar Gueye 2002 ba 2012 moo moo du moo jiite institut defe naa ne man maay njëkk a doon doom saalum saalum bu xam ne bii nekkul bu jiite fii waaye nag yàlla def ma déggoo ak ñoom surtout le grand sëriñ alaaji mu euh, kii Abdoulaye Muxtaar Diop moom ñu déggoo lool moom it may déglu ay xalaatam lool lool surtout bi ma dora ñëw daf ma jox série bu xam ne bu gudd la ci ay xalaat ak ci wàllu doxalin ñu defar ko ndax nag fii lébu yi ñoo ko joxe fii seeni armée luy maam la woon fii nii mboolem lu nga gis ñu collecté nii seeni armée luy maam la woon euh, armée la woon yu xam ne bi ñu ko toxalee ci lañu ko indi def ko nii bâtiment yi yëpp nga gis bi benn bu ne ci kaw yi armée la ne moo tax am na place yu xam ne ñoom xam nañu ko ba léegi mm. duñ nangu kenn def fa lu xam ne mm. lu du naka sa noonu la duñ ko nangu ba léegi. ci barab waaw fii ci barab bi ñoom xam nañu ko ñoom. Hmm. xëy nañu ñun gan ñi. ko xam waaye nag dañ ko di wattande ko. Hmm. toujours hmm. dañ xam ne fii ñu tabaxal ñu ay bureau de ñu xëy di fi liggéey suñuy maam ñoo fi nekk ci suuf ñoo nekk ci suufu suuf bi waaw bu ko defee ñoom itam yàlla may na leen mbaax gu mel noonu eh, te itam lépp lu fi nit liggéey ci lu baax eh, maam yooyu tëdd fa Eh, yàlla dana leen ci bindal yi tuyaaba. yow itam nga ràññeeku ci wàllu mbind. ak sagal mag ñi boo gisee ñu do ñëw ci yow tuuti ndax eh, gis nañu eh, ñu ngi tiim livre boo xam ne yaa ngi ci waxtaanee Cheikh Oumar Foutiyou Tall am na Serigne Fallou Mbacké itam gëstu yoo xam ne defoon nga ko ci moom daanaka ba jébbal ñu ci ouvrage yooyu ak yeneen i mag. tey bu ñu gisee mag ñi xëy na génération yi tey umpale leen xamuñu leen yow miy yëngu ci fësal seen liggéey bu baax lan ngay dénk xëy na kilifa yi ak sax génération wu tey. waaw loolu nit ku ne. dafa am lu xam ne yoon booba yàlla moo ko ci xiir dafa naa ne wàllu génn mbind dara mu génn man maa ngi ko commencé mille neuf cent soixante quinze euh, article yi ma njëkk génne ñu publier ko booba maa ngi doon jàng ci université bu Koweït euh, booba ba léegi nag yàlla xiir ma bi ma nee Sorbonne ma def doctorat de troisième cycle ci école de Pire école de Pire Sañaxur walilahi alhamdu bi mu génnee yàlla def na ci succès bu bëree bëree bari mag ñi nag di ñu bind si ñoom euh, xaw na bëri bi ñu toogee fii ba ne fii ba léegi confréries yi ne Sénégal euh, euh, Cheikh Moussa Camara ci tariqa confrérie Xaadir la ne bind nañ ci moom Eh, alxaaji omarul fuuti taal eh, ci confrérie eh, tijaan la ne xalifa ababacar si xalifa alxaaji abdoulaye siise dajjaama xalifa alxaaji abdoulaye ñas bi ñu mujj mujj a génne ñu def ci barham ibrahima mahmoud diop ibrahima mahmoud diop bii bu alxaaji mohamad ñas la moom mooy bi ñu mujj mujj mujj mu ngi génn ci ci weeru décembre bi ñu génnee maanaam loolu moom dafa nekk lu xam ne lii euh, mooy suñu jubluwaay fu mu nekk nii ci xalifa yi wàcc liggéey ci diiru ñetti ñeenti at yu mujj yi am na ci kenn ko xam ne kii ci la ñu bugg a def euh, benn journée scientifique bu mag euh, dañuy xaar ndigalu ay njabootam comme nag njabootam joxaguñ si ndigal du ñu mën a tudd tudd mais heure bu ñu seen ndax lu ñu ciy def ne lu ne rek bu fekkee ne ci këru diine gu mag la il faut ñu bind ka fa nekk ka fa yàlla taaj ne ko dañ bugg a def nangam ak nangam ak nangam ci benn ci say waajur walla nangam bu ne waaw ñu door a départ defar liggéey looy dénk kilifa yi ci mag ñu baax ñi nga xam ne am nañu leen euh, war leen mën a fësal xëy na delloo leen jukkal mais aussi fexe ba ndawi tey xam leen te daanaka euh, ñu bari umpale leen man de de foofu li ma la si wax am na samay étudiants yu xam ne ma encadré seen thèse de doctorat hmm. euh, am na ñu xam ne dañuy buur ñëw ne man nangam laa bëgg a liggéey man leen déedéet liggéey leen ci diw sàngam diw moomu de bu ngeen ci liggéeyee da ngeen ci da yàlla dana leen jox barke. Mm-hmm. loolu kat dama koy wax rek pour njort lu rafet. Mm-hmm. ak liggéeyal mag ñi ndax man maa ngi ko basé woo rek ci sama thèse de doctorat de troisième cycle. Mm-hmm. Euh, ma def ko ci piir ci Kadi Amar Fall. Euh, Kadi Amar Fall le fondateur de Pire. Euh, wallaahi alhamdu waxuma ne thèse ëpput ko succès mais bëriwul bu ko ëpp succès. ma boo ci liggéey ci. alaaji muxtaar Touré bu njaanjaay alaaji muxtaar Touré bu njaanjaay moom itam bu ñu si liggéeyee yàlla defal nañu ci succès yu mag a mag a mag euh, sama premier étudiant bi ma njëkk a ci loolu mooy Ahmadou Bamba Sall moom la ñu tuddee sëñ baam ba sama benn étudiant ñëw ne lii la bëgg a liggéey lii ma ne ko demal liggéey ci Ahmadou Bamba Sall ndax kenn defagut ci thèse euh, te boo ci defee thèse yàlla dana la ci may barke yàlla dëggal lañu ñu waxoon ci baaxam ak mandum kooku fu ne mu ngi nekk professeur fee ci université bu Thiès. Mhm. soo beneen étudiant ñëw ne dafa bëgg a liggéey ci nangam ak nangam ak nangam ma ne ko déedéet. Mhm. yow demal liggéey ci borom jaamam. Mhm. yàlla dana la ci may barke. yàlla dogal na ne kooku bu mu soutenir thèse am man fa ma neexoon IFAN euh, moom moomu ma moom moom moomu fa remplacé muy jëm daraame mu nga foofu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen am na bu yàggul rek ci alxaji alxaji Omar Ndaw sama étudiant bu xam ne mu ngi soutenir ci biir mois de janvier bii ñu génnee moom itam loolu la ko wax moom nag dafa droit soutenir mais heure bu ne dama koy wax ne ko ah bëgg naa ñu ñaan de ndax man maa la noon demal liggéey ci ko ñun lool ci la ñu yàlla xeer ñooñu eh, itam xale yi nga xam ne agsi nañ ci njàng ba nga xam ne am nañu seen licence am seen mastar nangu la déglu ngay leen di xiir ñu liggéey ci mag ñi defe naa ne yéene boobu Euh, yàlla daf koy dëggal ndax euh, am na fu xam ne yonent bi moo ñu ko wax inamal amalu bi niyaat wa li kulli imri in ma nawa maanaa jëf yëpp mu ngi aju ci yéene kenn ku ne nag la mu yéene lañu la ñu koy defar waaw moo tax bu ko defee ñun de bu ñu sañoon ñun daal lu des ci ñu dund ci wàllu gëstu ci xam-xam incha allahu rabbil alamin ci liggéeyu mag ñi lañ ko fas yéene def euh, fasuñu yéene wàcce ko Euh, euh, encadrement yu ñuy def ak suñuy étudiants itam ku ñu si déggal itam moom itam ci boor boobu génne woon ci benn mag ci euh, jukki muy Seydou Nourou Tall doon ko waxtaanee ñu bàyyi la nga tëj ci moom daal di tàggoo. waaw foofu sax li ma fiy tëjee de Seydou Nourou boobu de bu ma bu ma sañoon les jeunes yi nga xam ne ñooñu ñooñu gën a faree ndaw commencé di encadrer fee ci département arabe yi. ñoom itam dañ mobiliser seen étudiants yi ñu ñu ñu def ci ñoom thèse ndax yooyu dafay gën a saxal seen i liggéey bu ko defee ñun lu ñuy dénk suñu bopp d'abord mooy ne euh, yoon wi nga xam ne bii ñu ñu ko xàllaloon ñun ñu aw ci ndaxte du ñun ñoo xàllal suñu bopp yoon li tax ma ne du ñu xàllal suñu bopp yoon euh, ba ñu juddoo tollu nekk ndaw lañ ñu womat yóbbu ñu ne leen dem leen jàngi daara ñu dem di jàngi daara ba aw yoon wi xale yi itam euh, yoon wi buñ ci nanga nangoo sóobu il faut ñu ànd ak muñ ndax yoon wu gudd la surtout njàngum diine ci lislaam ak njàngum xam-xam ci lislaam keroog man bi may soutenir sama thèse de doctorat d'état euh, booba kii ñu toogal ni mu ngi toog foofu keroog wax naa ne wax naa ko samay doom ak samay sët ne leen fu mu ne nii de jataay bi ma toog fii le 10 avril 2002 ak bi ma waxee ba si numéro ak tey war na nekk juróom cinquante ans juróom fukki at ak juróom benn weer waaw ma dara soutenir sama thèse de doctorat d'état léegi nag loolu xale yi ñoom mënatuñu ko supporter moo tax sax université yi nekk ci adduna bi sax xam nañu ko ba nga xam ne fu mu ne nii buñ noonu nañ def xale yi nañ dem defi doctorat d'état daanaka téeméer bu ne doo mën a am juróom ñu ko def moo tax ñu gàttalal leen yoon bi ne leen yéen fu mu ne da ngeen di defi master di rek dem defi doctorat jeexal ngeen ci waaw moo tax euh, may leen di denk ne euh, xam-xam duñu ko yàkkamte xam-xam duñ ko ut ci ñàkk teggin xam-xam duñ ko ut ci ñàkk a muñ ñàkk teggin gi nag fu mu def si bëri am naa sañ-sañu wax ko. dem nañu ba yegg ci élève di dóor ki koy jàngal di dóor ki ko jàngal barki démb rek maa ngi koy déglu ci kii di ko dóor di ko saaga. di def lu leen neex ah loolu nag euh, séentuwuñ ko ci kur xam-xam ca yi nga xam ne moom la ñu wax ne mooy joxe barke it mhm. ñun de fekkuñ ci point boobu. waaw point boobu ñun fekkuñ ko ci euh, ne loolu dana jox barke ndax ki la jàngal. ndax yonent bi daf ñu wax ne man alamaka xarfan mi ma taxtaajuhu fi umuri diinak foofu abooka fi diin ku xam ne jàngal na la benn xaraf waaye xaraf boobu foo delloo ci sa diina da nga wax ne xaraf bii kat maa ngi ko jàngee ci diw kooku sa baay la ci diina naka nag ki nga xam ne moom bu xëyee huit heures ba ngoon mu ci yow hmm. di la dimbale di la defar raxas sa xel raxas sa xol raxas sa jikko hmm. yokk la xam-xam hmm. ubbil la yokkal la ubbeeku xel ak jis jis ah boo demee nag ba sa fit dem nga nangu ko saaga a ah, loolu moom itam eh, yow bu boobaa jar ki waaye nag ñiy jàngale itam ñoom it war nañu seet seen comportement mm. war nañu seet seen comportement ndax léeg-léeg na ma yàlla baax ci terme bi ma bugg a wax léegi léeg nga dégg ci yeneen école yi ñu ne école sàngam de diw sàngam jotee na fa ak élève ba élève bi nangam ak xam nga yooyu itam yow ni nga ne mm-hmm. eh, eh, waxuma sax ñun waaye même yow mii seen dibi jàng mm-hmm. dana fekk ne ki jàngal foo ko seen rek respecté ko mm-hmm. am na jamono jàngalekat bu génnee rek foo ko seen dana jàngalekat bu demee ñibbi këram élève am bu ñëw bu bugg solu dafa bugga a solu comme kii bi ndax booba li ñu jàngale ci pédagogique amoo sañ-sañ dugg ci classe ak dàll yu fure amoo sañ-sañ dugg ci classe ak bu tilim am sa comportement da koy defar maanaa euh, ci science de l'éducation sa comportement sa yiire sa lépp fu mu ne nag dangay dem sax ba ci biitab classe mhm. gis ku sol jiin bu xam ne bii mhm. mu taxaw ci sa kanam di jàngale mhm. kon nag bu boobaa élève bi itam bu solee tubéy yi ñu xar yooyu fu mu ne gis naa ay tubéy yu xam ne dañ koy bënn bënnaate waaw déchiré ko <laughs> xam nga kooka bu xasee dugg. Mhm. yow itam amoo sañ-sañu. ne am am amoo sañ-sañu ne ko génnal solo ji. Ah. ndax yeneen bokk kii xam nga loolu itam il faut ñu wax ko suñu jàngale mbokki kat yi. Mhm. ndax foofu it am naa sañ-sañu nag wax ca ndax inspecteur général la mhm. ci système éducatif bii ñu ne. waaye am na noonu ñu xam ne jàngalekat yi war nañu seetaat seen bopp. loolu moom sama ndénkaane la te itam. jànkale jàngale responsabilité bi gën a mag ci la bokk ndax nit kiñ la jox nit kiñ la jox ndax dañ ne maçon li muy mën a defar muy bâtiment bi menuisier li muy mën a defar mooy chaise yi ñu toog waaye jàngalekat nag nit ki nit ak jëmmi boppam lay defar kuy defar nit nag war na bon gën a mën a taxaw vraiment ba nit ka muy defar ëllëg bu ko génnee rek ni kiikat maa ko jàngal ñëpp ne askay mhm. waaw loolu daal man mooy lu ma ci jërëjëf amoon nañu mbégte mu rëy dalal ci waxtaan wi am na solo lool ñu ngi lay sant di la gërëm jërë ngeen jëf ñun ñoo leen gën di sant ndaxte eh, seen xel dafa buur rek dañu ngeen ne il faut ñu dem seeti ko mhm. te xam nga léeg-léeg ku xaw a xati jamaano la mhm. yow itam bon ak sa rajo bokk ngeen ci ñu nga xam ne dangeen ngeen bëgg a suuxal jëf mag ñi dundal ko dekkal ko ba ni tam yéen itam yal yàlla suuxat seen yëf dundal leen dekkal leen ba seen rajo yi ngeen di liggéeyee bokk ci gën ci rajo yi yàlla musal leen ci ba nga xam ne kàddu yu bon yi jub ci yeneen place yi yàlla bu mu fa mës jubi ca barkeel leen barkeel seen ak njaboot yàlla mën na ko am na ko yàlla na defal ñu ko ñun ñëpp jërëjëf jërëjëf professeur Thierno Ka njiital institut islamique la ñu doon dalal ci démb ak tey li lay taal waxtaan wi moo doonoon Thierno Seydou Nourou Tall mi génn àdduna ñaar fukki fan ak juróom weeru janvier atum 1980 ñu doon ko fàttaliku waaye ni ngeen ko déggee itam waxtaan nañu ci institut islamique bi mu jiite tey ñëw itam ci euh, mbind mi nga xam ne mi ngi ci yëngoo jublu ci euh, fësal liggéeyu mag ñu baax ñi mag mi ñu doon waxtaanee tey ji Thierno Seydou Nourou taal ñuy nuy njabootam yépp di gërëm gan gi di leen gërëm yéen itam ci déglu bi euh, dig leen daje dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen di gërëm itam jaaw jàllo mi woon ci machine bi Fatou Thiam Ngom moo fare woon ci kàddu gi ñu yendoog jàmm